fatxu nabiyil muntaqa saadun ilaa bayti ilaahi naasi wal xibbin ilaa bu ngeen déggee bayit yooyu jib xam ngeen ni jëmati nañ ci ku mag muy kan kenn ci njabootu Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul kenn ci góor yàlla yi sëriñ bi defaral boppam mooy kan mooy ki nga xamante ni adduna bépp bëgg na noo xam ki nga xam ne moom la sëriñ bi delloo woon lël ma bañ jógee Samba muy li mu ne ko delloo lël mi mu delloo ji lël mi bokk yi dal ci kawam kooka mooy kan mooy sëriñ Ibrahima jóob turam bu njëkk doonoon barget birima ko du maram bisam bi kañ lay doon mu ngi doon le 18 tolloog ñaar fukki fan ci weeru rajab mi këstu rajab ci ba ca suba ga lañ koy defee fu koy defee Touba Darul Minan boo jigee tëri penc mi daaru daaru Minan bi jëm corniche ñeenteel bi mbedd ginnaaw kër sëñ taxaa foofu lañ koy defee. ñaari at yin wees nag dafa doxul woon dañ ko doxul woon ngir li xewoon ci réew mi te gàllankooroon fépp moo tax bu mun ko def ren jii nag ñu ci. bokk koo def nu di ci woo nag bokk julli yëpp di ci woo nag képp ku ayu ci maam Ibrahima Diop bis bi nañ ci taxaw ba mu rafet nañ ko gën a rafetal am na ci ndigal suñu Muntaxa am na ci ndigal suñu Ahmadou Mokhtar am na ci ndigalul kilifa yëpp ak ci kan ci ci ndigalul suñu Modou Diop mi nga xam ne mooy fii si Ibrahima Diop koddu loolu loolu la ne woon nan nan nan nan ci waxtaan bëgg leen yëgal ne bis bi daañu ko def pour Kazu Rajab ba ci ëllëg sa maanaam benn ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru tubaab incha allahu taala fii ci Touba lew na noo ngi ci woo bokk yëpp ku ko mën nag ci teew rawatina nag li ayu ci waa kër Ibrahima Diop. di sof samay kaddu rek ci kaddu yu Baye Cheikh Diop di leen yëgal bis bu màgg bis boo xam ne ki ñu koy wooteel dafa jëf ba jëf jafe dafa wan gannaaw àdduna ba ñëpp jublu àdduna kooku mooy maa Ibrahima Diop Koddu Maram di ki nga xam ne. moom la comme ni ko Baye Cheikh waxee rek sëñ Mountakha moom loo waxoon ne moo njëkk ci sëñ bi kon kooku dafa demoon ci sëñ bi nga xam ne sëñ bi wooteegul kon kooku dafa wuyu ba kenn wo ba kenn wuyoogut bis la boo xam tamit dañ ciy waajtaay màggal gi nga xam ne mooy màggal gu mag gi nga xam ne moom la ñu fas yéene def cent ans yi nga xam ne moom lañ ñibbi si fii lew na war a nekk 2028 incha allah kon dañ ciy waajtaay waajaale màggal googu ñu ci woo ñëpp di ci woo waa Pari Ndiaye di ci woo waa di ci woo waa di ci woo képp koo xam ne rek yaa ngi seetu ci maam Ibrahima ak foo mën a nekk ci àdduna bi ñu ngi la ci woo di ci woo waa diaspora bi euh, ak fu ñu mën a nekk ñu ngi leen ci woo bis boo def sa kéem lay bi jëf jafee dafa àdduna kon ñu ngi leen ci woo yéen ñëpp euh, bis bi nag ñu ngi nekk samedi le 18 bu ñu ko seeyee ba ci suba ga incha allah kon ñu ngi ci woo ñëpp di ci ñaan suñu borom yóbbuñ ci jàmm. mbokki julli di mbokki taalibe yi maa ngi woote ci turu soxna Ndey Diop màggal gu ñu amal fii ci Touba na di ko amal ci turu Cheikh Ibrahima Diop Birima Koddu di woo suñ bokk jigéen yi yëpp bàyyiwuñ kenn waa Paris Ndiaye waa Touba bàyyiwuñ kenn képp ku sëpp ci maam Ibrahima rek ñu ngi lay wasalaam bis baa ngoog di ko yëgal nag waa Nguraan ak waa Ndukumaan Ndiaye waa Cilmaxa ak bokkam yi mu bokkal yi nga xam ne ñoo bokk néegub géej ñu ngi leen di woo kenn desut seen bis la kan mooy Serigne Ibrahima Diop bu ngeen ñëwee ci minal baax xadim Cheikh Ahmadou Bachir mu Cheikh Ahmadou Bamba Xadim Rasul wax na ci lu leer te xam ngeen ni Cheikh Ahmadou Bachir lu mu wax euh, kenn dootu ko si kisàkk ñu ngi koy defee nag fii ci Touba daarul Minan kañ lay doon le 18. bu nu defee Kazu ga ba ca ba ca suba ga ci Touba Darul Minan di woo bokk yëpp di woo bokk jullit yëpp njàngum alxuraan bi bu nu xëyee lañ koy tàmbali ba mu ba mu naaj ñu def bernde yi jàngi xasida demee nag ba nga xamante ni si. tàkkusaan jot na julli nañu ko ñu daal di dalal bokk yi nag waxtaan ak ñoom gën leen waxtaan waxtaanal nag xamal leen kan mooy sëñ Ibrahima jóob ak liggéeyam ak njabootam gi kon ñu ngi leen di jox dig dig daje bis boobu incha allah. xubbu nabi li ilaahi sawara saadun ilal madinatil munawara